mbokki julit yi ñoo ngi leen di siyaare baax ndax ki ni bëgg a waxtaanee muy maam Cheikh Ibrahima Fall Babul muridin moom mi nga xam ne ku am jàmm gi sëñ Touba moo la ko may Cheikh Ibrahima Fall nag fii jamono toll war nañ koy waxtaanee ngir ndaw ñu bari xam doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall ci lum doon dox ak ci lum doon yëngu. ak nan la jàppe woon sëriñ bi fi ne nag àdduna moo cate ñi fi des di ay gone te ñi leen jur waxuñu leen waaye Cheikh Ibra moom daa bokk ci kanay sëñ Tuubaa yi ba tax na fi ne fal folklore bi daa bari lool ci yoon wi ba ñu ci bari di dox ci ak Baay Faal noo xam ne nu Cheikh Ibra Fall gërëmut te Cheikh Ibra euh, ni doon doxe ci yoon wi mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ak jaamu yàlla ak di ko digle ndax fi ne léeg-léeg da ngay dox ci mbedd yi sax gis koo xam ne day mel melo woo xam ne du melokaan wu Cheikh Ibra Fall gërëm te Cheikh Ibra nit ku sell la woon nit ku xam yàlla la woon nit ku fonkool alxuraan amoon diine la nga xam ne jamono ba muy nekk ndar di liggéey moom Cheikh Ibra Fall booba bokkoon na ci ñi ëppoon alal ci réew mi nga xam ne jamono ba mu nekk ndar moom Cheikh Ibra di fa liggéeyal sëñ Touba moo tax Baye Fall bu ci nekk de war ngay sax ci liggéey ni ko Cheikh Ibra Fall doon defee nga xam ne moom liggéey la ñu joxoon moom Cheikh Ibra Fall liggéey nga xam ne jamono ba mu nekk ndar moom Cheikh Ibra di liggéey booba jamono doxewul woon nii te booba Cheikh Ibra xëyoon na ci ci ci ndar te bu xëyoon tëj ay bikitam àdduna ci kiris la dëkk te loolu li ko mayoon mooy ak njàmbaaram ak nangoo liggéeyal sëriñ bi. te booba mag ñi wax na ne booba amoon na fa juróom fukki bitig yoo xamante si ni amoon na ko ca ndar ak fanweeri hectare ak ñett ak ñaari machine double chancière te dépasse musta fanaan moo dépasse addee ju mas a ñëw ci kër sëñ Tuubaa ci këram moom Cheikh Ibra Fall bu xëyee da koy yóbbu lu bu ngoonee lu gont ñëw mu yót ko sëñ Tuubaa doonoon nit koo xamante si ni nag nit ko silwiise la woon nit ko silwiise koo xamante si ni bokkut ak fii nga xam ne fii la ko nit ñi ci nekk ci mbedd mi di di fu mu gën a xotti ko fu mu gën a ñàkkee sutura fu mu gën kon loolu liñ ñu ciy jàngate kon Baye Fall bu ci nekk di dund Cheikh Ibra da ngaa war a civilisation nga xam ne boo xoolee ci col bi mu daan col rek moom Cheikh Ibra Fall nga xam ne jamono yi nii boo doon wëri ci ci ci àdduna di ko wër mooy col gi gën a seer palmaan la daan sol moom Cheikh Ibra Fall doonoon nit koo xam ne ku silvissé la woon daan misiré 2 mètres bay tàkk bay dee seew lool gis borom juróom-ñaareel bi asamaan te saa bu doxee aras jaay kursi jaay te booba jamono ba jamono booba col gi mu daan sol rek ak jamono bii léegi boo koy xool da xam ne nit ku sell la woon waaw kon Cheikh Ibra moom bàyyi Fall yi war nañu gën a mën a jàngaat ci moom civilisation ak yar ak ay teggin ndax fi ne civilisation gi nekkoon ci moom moo taxoon tubaab yi sax danoo demoon ba bëgg ko tubaab yi danoo demoon ba bëgg Cheikh Ibra ak civilisation gi nekkoon ndax ci moom ab tubaab daan njëkk a bàyyi ko France ñëw vacances yi maam Cheikh Ibra na ko Fall yow képp yaa ma tax a ñëw. ndax ni nga ni ni nga yiwee ak ni nga sell ak élégance bi nekk ci yow waaye leen rek moo ma jaaxal ci yow loo liggéey jox ko jëmm ji Cheikh Ibra na ko lii la yàlla dogal ci man neex na ma kon Baye Fall nan gën a xamaat lan mooy Cheikh Ibra Fall te ñii nekk ci mbedd mi di di di di di taxawaalu ak ak ak ak ak ak di def naka su du noonu noonu Cheikh Ibra Fall gërëmu ko waaw nit nag boo fekkewut fa muy liggéeyee ah, ba ba muy am ngërëmal yàlla yàgg lool kon yow mi nga xam ne bi ngay ñëw yëggul uroo ko ko mën a yàqal. waaw te Cheikh Ibra lu mu am rek ci liggéeyal Sëñ Tuubaa ko moo ko ko may waaw boo ko yorul woon ay rasta tamit comme nii ñu ko yore ab jañ la yoroon moom Cheikh Ibra Fall da daan Samba Sange la daan kaalaw ba mbicc may wàcc moom Cheikh Ibra Fall kon ñu ci murid yi ju bari nan gën a xamaat lan mooy civilisation ak lan mooy ak Baay Faal. xam nga xam nga xam nga gise bi daanaka wër ga moom wër gi mu doon wër Sëñ Tuubaa daanaka noos la woon rek ndax ki mu doon wër xam na ko ndax damay faral di wax ne Cheikh Ibra Fall tëbul tëb rek dem jébbalu ci sëñ Tuubaa fii ne ñu ci bari dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo bàyyiwul xel lool waaye Cheikh Ibra daanu jël indiwu ko sëñ Tuubaa tëbul tëb dem tubaa ndax boo am Musaa Ka wax ne mas nay xibaar ak jébbaloom bay wax ne yàlla mii ko moom moo ko ne Bàmba moo la moom raasi ko jox ko say pexe waaye tegtal ko yoonu murit di aw ba raw pexe murit ba am ngërëm bari murit te dooti ree di tex texi mu daal di dem tay ba Ndakaar ngir dégg Bàmba di fa xaar seet na sëriñ tay ba Ndakaar cim njàng lay xamee pexe nga xam ne Cheikh Ibra bi mu wéri sëñ Tuubaa yàlla suñ borom mi nga xam ne moo bind jaam ne moo ko tegtal sëñ Tuubaa kon daanaka ki mu doon wër kum kum xamoon la fii ne damay wax ni ki gën a gore ci àdduna mooy Cheikh Ibra Fall ndax di wëri koo xam ne moo la moom mooy kon mën naa ne Cheikh Ibra réew mi ñu ko ci gën a gore bëriwul waaye bi muy wër sëñ nag ah, danaka wër mom moom ni ma ko waxee rek nos la won ndax bi mu wër sëñ Tuubaa jaar na ci pak yu bari jaar na lay kan jaar na Badar Gueye jaar na Tayba ndakar way lo lepp da bëggoon a jàngal murid ne ngeureumal yalla kën du ko am te sonno waaye mënoon na tepp tepp dem ci sëñ Tuubaa ndax yalla ko tektel te yalla kum tektel do rir motax bi mu wëri sëñ Tuubaa neena beuti xol la ma defal ko xamne ne ki may wër buma la gisee nga koy nuru nurul te doono ko dama koy dëpp sa mbir ba xam lu cey fekk. moo tax jaar na ci ci ci ci ci ci ci ci mag ñu bari yoo xam ne duñ tudd seen tur waaye neen léeg-léeg ma jaar ci kilifa goo xam ne nee na day am daraja am sañ-sañ lool waaye Cheikh Ibra faa nee na bu tëddee ba guddi nee na ay maqaamaam ak ay darajaam dan ma koy riimaleel nii ma di ko gis kon Cheikh Ibra laataa mu daa dem ki sëñ Touba xamoon na lu bari ndax laataa daa dem ki sëñ Touba suñ borom mi ko wax waxal ko ne wax ko ne ki ngay seeti Ahmadou Bamba la tudd kon Cheikh Ibra laataa mu daan dem ki sëñ Touba amoon na ko mu doon te nag mooy mbokkum réew mi. ndax fi ne fanweeri dammeel ak ñett yi fi nekk ñëpp ay maamam lan te nituk alxuraan la ndax maam maam Seynabou njaay mi nga xam ne mooy waajuram wu góor waajuram wu jigéen maam Balla Fagey Ndiaye moo ko jur ak maam Soxna Balla Ndiaye ñu dëkk ca Njarewaaqi Cheikh Ibra kër ndayam ak kër baayam yëpp daaray alxuraan la kon ñàkkub juddu indiwu ko kër Sëñ Tuubaa te mag ñi wax na ne maam maam Balla Fagey bu daan génn ci daara ji ndeyi Cheikh Ibra Fall mooy téyal donga yi kon Cheikh Ibra te njare yëpp foo ci dem fi ne taalub alxuraan a nga fa kon Cheikh Ibra Fall ci ci ci ñi gënoon a mokkal alxuraan ci réew mi ay maamam lan woon waaye daanaka bi mu wër sëñ Touba nag wax na Baye Cheikh Ndiaye Baye Baye Cheikh Ndiaye Roqaya ne ko keroog bi may wëri sëñ Touba nee na jéego bu ma séqi ab kanu tàkk ci aras nee na malayka yi mu xarabiina yi nee na ñoo wàccee seen tabale yi di ko rëkk naan ku fi njëkk gën ku fi njëkk jël ku fi njëkk gën ku fi njëkk jël nee na ba ma demee ba commencé doxee loolee nee na ñu soppiw tëggin naan bëgg ak gëm ak jëf moo tax yoon yi moom bëgg ak gëm ak jëf rek moo fi may nit dara neen waaye ba ma demee ba commencé doxi bëgg ak gëm jëf yooyu ne dama lay koy soppiw tëggin naan fu waay yam yaa fa yamale sa bopp waaye ndeke booba sëriñ Makhtar Touré ak Serigne Adama Gueye booba Serigne Touba da leen yónni ay ay séri coor nga dégg Serigne Moussa Kanaan Makhtar Touré nga yeni coor yéen ko jëm Mbàkke Kajoor sëriñ bi yónni ko ci buur Cheikh Ibra Fall topp cay fexe ndeke booba Serigne Touba tam nam mun a gisanteeg Cheikh Ibra Fall ba mu won ko ba mu won ne njariñ li ki Serigne tubaa Cheikh Ibra Fall la ko wan a waree motax seigne touba yabal seigne aadama ki ak seigne makhtar Touré def ci ñom dara motax tax bam leen séenee dana jig ñeekat bu ñu doon jigéena mëna mën a nan ba wonu lor keroog ba leen cheikh ibrahim fall séenee dana ñeere bu ñu doon jigéena mëna mën a nan ba wonu lor ndax ku and ak dara ak ku andut ak dara yomb naa xam saka da ngay and ak jigéen ba ku la séen xam ne sa koll bi dara nga ci saka ak leerug yalla doom daal di toppi sëriñ Touré ak sëriñ aadama Gueye moo daan na wax naan suma doon ab ab te Touré tax sëñ aadama Gueye tax ñu indi ko ci sëñ tubaa bi mu sëñ ma sëñ Adama Gueye daal di nuyu sëñ ne ko am na ndongolun àndal nee na tay ba la bàyyi ko tay ba naqaar sëñ Touba nee na jàll si keroog ba mu jàll see moom Cheikh Rafaal nee na Seydina Jibril moo ne cëpp jàngal ma jàngal ma ni ñu jébbaloo moo tax Cheikh Ibrahima moom ak jébbaloo bokkut ak jébbalu kenn nee na sëñ Maxtaar sëñ naa Jibril keroog bi mu nee cëpp daa foq mbaxana mi mi mi mu tegoon ci bopp bi dindi méteel gi mu tegoon takk ko ci ndigg li nee na daal di raamuti sëñ tubaa nee na man it man Cheikh Ibra Fall ma foq sama mbaxana damm samay bëti oom raamuti sëñ tubaa nee bi mu raamee ba ci kanam sëñ tubaa moom Seydina Jibril daal ràmb ci poosam génnee addiya nee na man it ma ràmb sama poos génnee addiya moo tax mu daa wax naa kii kenn waru koo nuyu sol mbaxana kenn waru koo nuyu soli dàll te as gor ngeen da ngeen war a liggéey ba mu leew leen ngeen jox ko ko nee na loolu Seydina Jibril moo ma ko jàngal waaye keroog ba mu ñëwee ñaar fukki ndax lu jiitu ñaar fukki fan gi Cheikh Ibra Fall na ko Mbàkke Kajoor lu jiitu ñaar fukki fan la ñëw Mbàkke Kajoor waaye waxante baaku bu ma ba mu egg ñaar fukki fan koor moo tax nga diglu sëñ Musaa Ka naan diglul ma wax la bis ba ndax mu wóor ñaar fukki fan ci bisu la mbir ma wóor Seex Ibra Faal yaara xam ne yàgg na fa am na lu fa am na avant ñaar fukki fan koor gi Seex Ibra nekk na fa di waxanteeg sëriñ bi waaye yëf yaa bi ma mbir ma ba ñaar fukki fan koor mbir ma soog leer sëñ Tuubaa soog ko nangul ak taalibeem nangul ko jaayanteem waaye keroog bu ko sëriñ bi nangul ak jaayam teem de la mu wax sëriñ tubaa ba keroog ñuy wal bufti bi dootoo dégg benn sëriñ ci àddina wax ko sëriñ tubaa ndax bu ko sëriñ bi ne ndongali loon sa yittee Cheikh dafa ne ko egg ca yàlla fii ne nag léegi bëri na lool da ngay gis gone gu ndaw naan damaa bëgg egg ca yàlla waaye ba mu koy wax kenn képp la woon moom Cheikh Ibra waaw ah, fii ne nag léegi booy na ci nopp yi damaa bëgg egg ca yàlla lak sëriñ tubaa ne ko buñ xamoon fu yàlla nekk doonu fa fekk waaye nga déglu li ko sëriñ li ko Cheikh Ibra Fall tontu ndax yàllaa ko tegtal sëñ Tuubaa moom Cheikh Ibra waaye ngay digluwaat ci dégg-dégg li mu tontu sëñ Tuubaa dama topp tànk bi yàlla bi ba mu tàbbi sa biir jëmb ji boo ma ko génnee la ma génn ku dul yàlla am ma ci moom soxla sëñ bi ne ko li ma yor fanweeri at nga may toog ma laa jox liggéey bi Cheikh Ibra Fall ne ko nangu naa sëñ Tuubaa ne ko doo fi am lu toll ne mbaar doo fi am soxna doo fi am doom dangay ñàkk sa ndey ñàkk sa baay soobu ci yoon yàlla te doo te doo te doo dëpp Cheikh Ibra ne ko nangu naa. moo tax liggéey bi daanaka fanweeri at la woon waaye Cheikh Ibra ñetti at yu manqué ñeenti weer la ko liggéeyal nee na suuf see ko ëttanatu doom na ñetti at la liggéeyal sëñ Touba suuf si ëttanatu ko nee na egg na bu ciy dox moom Cheikh Ibra Fall buy dox ci suuf si liggéey bi mu liggéeyal sëñ Touba buy dox day curpi doom curpi samp sa benn tànk di doxe benn tànk ndox suuf see ko ëttanatu waaye doom dama caa boole woon aw way ñu ne ko Fall woy wan woy la mu ne dama daan wax naan bing bëng rëng doom dën xànjar ma lay laaj motax mune at mi samba law be fal yilif kadior Cheikh Ibra fal neena na at moma ci la murita ci la wacc té nga gis ko xam ne day nek ci fan wéri at du am ngeureumal yalla motax Cheikh Ibra fal yemu tok gor ñi. waaw xam nga jangal gi ñu gi ñu jangal ak talib ak seigne Touba bim mu ak seigne Touba Cheikh Ibra liggéey la saxo xam nga dégg seigne Moussa kanan ko yendo liggéey fana né rot gaay né law bana ba li ginar na kor moko fi xewal dawul doxé lu bamba wax mu di forem juree ja sant saaw da ngay delu gannaaw jàngil du fexé nga xam ne bi mu nekk ci kër sëñ Touba Cheikh Ibra daan dugg ci àll bi àll bi la daan dugg di taxan ak di liggéey lu mu yëndoo liggéey guddi ci àll bi da koy bàyyi da koy bàyyi ci àll bi moom Cheikh Ibra bu ko bàyyee ci àll bi ba guddi jot mu yan mu koy roñ di ko indi ci biir kër gi yu mu yëndoo liggéey ci àll bi da koy bàyyi ci àll bi ba guddi jot mu di ko roñ di ko indi ci ci biir kër gi. ba bis nag muy muy roñ bagage yi mi liggéey la sëñ tubaa ci àll bi di ko indi ci kër gi dajanteeg sëñ tubaa di fëgg buntub sëñ daam abdourahman loo ñoom naan leen jóg leen taal jàng jot na wax na nekk rek maam si rafal daa jàkkaarloog sëñ tubaa ne ko bàyyi doomu jàmboor yi lii nga leen di digal te wax la li sa borom wax ñu jariñu ci waaye ba dekkare ba wàccee nag ci la sëñ ci la sëñ tubaa waxee nag ku fi ku fi jàng indi woon dellul ko say mbokk waaye leneen a ngi fi lu gën jàng loolu nag mooy mooy mooy liggéeyal moy liggéeyal seigne touba lu fi keneen lu fi leen indi won lu lu jang na nga delu say mbokk waye leneen nga fi lu gën jang lu gën jang lolu tay mom nga gis mouride yi mouride yëpp di ci yëngu muy liggéeyal seigne touba wa da xamne Cheikh Ibra mom liggéey la na joxagn bimu nekk ci kër seigne touba nak kër seigne touba gi la njëkk xaj xaj ko ci digg bi sakatel jigeen ni ber góor ni nga xamne ber gi ber seigne touba kess gu seigne touba nekk sax kenn do fa dugg ay dal kenn do fa dugg ak mbaxana nga xamne lolu bi seigne touba ñëwagul amagul won ci kër seigne touba waaye bi sëñ Tuubaa ñëwee Cheikh Ibra Fall ñëwee la la la loolu soog a soog a am kon Cheikh Ibra Fall mooy ki wane sëñ Tuubaa ba murid yëpp mën cee jariñu waaw ndogu yi moom ah, sëñ Tuubaa ci boppam moo ko sant Cheikh Ibra Fall ndax da ko woo ne ko dama am gan goo xamante si ni dama bëgg nga teerul ma ko keroog bi mi dem seen yaram bay la andal bin mu génnee dana ko yaram bay mu ne ko faal mu ne ko xam nga lu ma ku baax kii def lo mu ne ko déedéet faal maa ngi koy bëgg a xam mu ne ko ndogu la may togg loo ndogu ne ko bindal ndogu seen yaram bay bind ndogu mu ne ko ndogu la ma sëñ tubaa di toggloo ne ko yaram bay mu ko faal mu ko ndogu yi may toggal seen bamba ku ma ci jox 15 15 mooy dërëm ñu xaaj ko ci digg bi nee dana la ci fàggul loo xam ne dootu yàqu fii àddina dootu yàqu àllaaxira te boo faatoo ma la àjjana mooy ndogu yi ngay gis nga xam ne ba mu koy commencé ay ñetti ndab la doon ay ñeent ak super boo xam ne da daan beral super bi ba fi ne boo demee kër seex Raf kër bunti kër Cheikh Raf Faali foo ci dem bu ñu toggee ndogu wii ngeen di gis de day am super boo xam ne dañ koy ber ci biir kër ci biir kër wanag yi lañ koy toggee di ko beral si ki fi toogal sëñ Tubaa ndax nee na kuy jox sëñ Tubaa la gën nga koy joxal waaw moo tax sëñ Amdi Xadi Fall yal na fi yàgg loolu te wér di wax ne ku yokkul daa wàññi boo demee tey jii njaareem wala nga dem kër sëñ basirou fall xuraan wala nga dem kër sëñ cheikh jëmb wala nga dem bundi kër cheikh Ibra fall da ngay xamni ne ndog yi Seex Ibra Faal yi moom yokku na sëñ na ko na def nak bu ma saan taal ndog yi moom Seex ba ba ba tollu ba ni rusi ndawal gi da na bayyi ba tollu ba fa saxar say genné dom ba fa saxar say diggale mu dem tok mu dem tok fa ko démé dom ju jigen ji nan laal la fall day dem ba tollu mom nako bayyi té nga moytu saxar si mu nan ko laal la mu nako fall mu nako xana xanaa xamoo ndog yi may togal sëñ Tuubaa ku dem ba umu ba mëno am dara dom ba nga ñëw ba fii tolloog fi saxaar si génne doom nga taxaw fi loo bëgg àddina da ko am loo bëgg àllaaxira da nga ko am moo tax gaa yi di di rey seen bopp di di di di miraas seen bopp di ko def ci ndog yi Cheikh Ibra Fall te fi ne ndog yi bu jotee boo waree buntu kër Cheikh Ibra yi fi ne fi ne ñu ci bëri fi ne tey jii di kumte sax ci kumteeg tey jii am na ñu bëri ñoo xamante si ni buñ amul sax dana lebi ngir Cheikh Ibra Fall def ci ndax xam nan bu baax li leen Cheikh Ibra Fall jaral waaw xam nan baax li leen Cheikh Ibra jaral moom